rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah de 29 août 2019 ñu ñëw ci yéen ci yëglikaay yi moo xam sunu làmb la tey wala record bu dee yëglikaay bi di sunu làmb la moom fa nii day li mu jógtee daal mooy maanaam di jàngat làmb ji tey nag moom ni mu ko jàngate nenn la dafa ñëw ci li nga xam ne nii day maanaam ay division daal la ko def tey la ko commencé première division ba ba ngay dem ca sixième sax wala septième division loo ci mën a dégg daal tey ay division la wax première division bu njëkk ba nag ka fa ne maanaam division bu njëkk ba wala boog première division ña fay yëngatu wala ña fa ne yëglikaay bi ne ne ñii la Modou Lo fa ne Balla Gaye numéro de Bombardier ak Eumeu Sène ñoo ñaa nekk première division deuxième division ña fa nekk Ama Baldé ku jiite Gris Bordeaux mu nga fa Tapha Tine nga fa Lac de Guiers numéro ak Boy Niang ñoo ñooy waa deuxième division waa troisième division tamit yëglikaay bi neen du ñenn ñu dul ñii jàppal Sa guy gi Papa Sow Forza Yékini Senior Reug Reug Modou Anta Siteu Tyson de ak Amaneex ñoo ñaay waa troisième division ñeenteeli division ba maanaam di quatrième division ña fa nekk yëglikaay bi ne ki nga xam ne nii la moom mooy ki nga xam ne moom moo di Valdo Garga Mbossé Giri numéro 2 Moussa Ndoy Elton Fara Diène Kayre Coens Sok Gammu Gueye Modja ki nga xam ne mooy jamtéeri ambulance bu Thiès général Malika ak ki nga xam ne nii wala boog général bu Fass Pape Mbaye numéro 2 jariñu Marley Ibou Senghor numéro 2 ak ki nga xam ne moo di laay Pythagore ak Sunjata noonu la ko yëglikaay bi waxee ba tey beneen division ba nga xam ne ni tamit ñëw na ca muy cinquième division jàppal ñam fa dugal daal mooy ki nga xam ne mooy pakala bu mbuur doomu dàngu ñooñ tamit wala ki nga xam ne moo di Jordan ak ki nga xam ne mooy Abdou Diouf Sokosim ak ki nga xam ne mooy ne ko rel Moussa jum nees Malick Niang ak góor Sock yëgle kaay baay wax ba tey de du samay wax am na ñoo xam ne nag moom aw tur la leen wutal ñoom moom ay retard la leen tuddee ay retard la ñoo xam ne daal fi mu nekk nii moom fa ñu toog mënatuñ faa jóge ñooñu ñoo nekk sixième division mooy lees numéro 2 Gambien Tonnerre Cobra numéro 2 Lagros bu Fass Bàcci Seeraas bu Pikine ak ki nga xam ne mooy Tidiane Faye bu Lamsar Mambal numéro 1 ak ki nga xam ne mooy Baye Mandione dafa Gueye numéro de Aliou Mané Armé Zarko Fëgala Naaru Sogas Aline Sey numéro 2 ak ki nga xam ne mooy mbaytin ondu lëfu Ngeer Kolifay numéro 2 ak ki nga xam ne moom moo di Issa Pouy yëglikaay bi ba tey de mooy wax ay waxam maanaam daal ay division la xëy tey def li nga xam ne nii moom moo di lamb ji waaye am na ñoo xam ne tamit ñëw na ci ñoom ñooy ay xale yoo xam ne day ay espoir la yoo xam ne day ñu ngi émerger jëm ca kaw ñooñ tamit dajale na leen am fu mu leen dugal double moteur la kalmu nduur ak ki nga xam ne nii mooy gàkku de ak njaay tin ak ki nga xam ne mooy caatu yarax maama Lamine ñooñ ay xale lañ yoo xam ne day ñu ngay émerger di yéeg jëm ca kaw am na ñoo xam ne tamit ay xale lañ yoo xam ne day ñoom it ay xale or la leen yëglekaay bi tudde jàppal aada faasa nga ca dafa mbër Jackson numéro 2 caatu yaraax Mor Kankang Aboy ak ki nga xam ne mooy caatu ngéwél Petit Baboy Ibra Gaabu ak ki nga xam ne mooy ñaabu ndaw ak ki nga xam ne mooy caatu montagne serpent noir Lis Ndiago ak ki nga xam ne mooy Mamor ki nga xam ne mooy Cheikh Super Diamano ak ki nga xam ne sang lañ koy wax ak Fourière yëglekaay bi daal tey noonu la xëyee tey jàpp làmb ji def ko ay division waaye ka nga xam ne nag moom moo di Fourière moom jàppal bu Grand Yoff yëglikaat bi na moom day mu ngay wane boppam bu baax a baax wala boog dynamique ba mu nekk day mu nga cay dëggal li nga xam ne ni moom moo di boppam yëglikaay bi moo xëy tey ñëw jàppe noonu lamb ji daal wax ñu ko bu baax a baax a baax moom sunu lamb keneen koo xam ne nii wala leneen loo xam ne dañ ko doon dox mu di ab combat ka ko doon dox nag moo di Fallou Ndiaye muy diggante Papa Sow ak Siteu père Max Mbargane wala Max Mbargane ba nga xam ne moo yor Siteu di ab manaat sem xëy na tey di wax moom dëggal na dox gi waaye tamit am na leneen loo xam ne day wax na ko nee na am na yeneen promoteur yoo xam ne day ñu ngi leen di proposé sax beneen xaalis boo xam ne ndax ëppul ba nga xam ne moom la ñu leen fay moom Max Mbargane daal moo xëy tey di wax loolu mu mel ni ki kon diggante Papa Sow ak Siteu fi mu nekk nii day ñi mu intéressé wala ñi ko bëgg bëri nañu lool lool lool leneen loo xam ne dañ cay dem wala keneen koo xam ne dañuy dem ci moom muy ki nga xam ne moo di Modou Lo Modou Lo nag mu mel ni ki débat bi fi jógoon moom ci ku muy bëreel ak kan lay bëreel mu mel ni nag roi des arènes bu bees bi fi nekk ni moom dëggal na ak roi des arènes ñëpp ku ci nekk nag lam la war a tontu tontu na la ko moo xam Ama Baldé la moo xam Tapha la wala leneen 33 pour cent la amoon ci doxle maanaam doxu kon lool daa ni nag saison 2018 2019 bii jeex day ñu géejawaay xëy tey wan nu ki nga xam ne moo di Balla Gaye Lac de Sa Thiès ak ki nga xam ne moo di guy gi waaye record tamit yemu ca da am na leneen loo xam ne ñëw na wax ñu ko li nga xam ne day mooy li nga xam ne mooy li nga xam ne nii mooy nuit de la bi maanaam guddi gi ñu war a jagleel daal mbirum làmb Tyson ma nga xam ne nag moom la ñu dénk lu jëm ci wàllum wut ay moyens luy tax mbir ma jàkk am wàllum koppar ak yu mel ni ki ak ñu leen ci jàppale mel ni ki nag record ak ñi nga xam ne Tyson fi mu nii nelawatul ba yandoor mu nga cay dox di ca wax guddi ak bëccëg waaye ki nga xam ne nii day moom moo di Yékini moom jamono jooja yëglikaay bi di record mu ngi xamal ne mu nga ca dëkkam ba nga xam ne moo di sowal di fa def li nga xam ne nii moom moo di ay vacances am maanaam daal di noppalu yëglikaay bi moo xëy tey ñëw wax ñu lu mel noonu waaye leneen loo xam ne yëglikaay bi xëy na tey wax ñu ko muy ki nga xam ne nii moo di Mamadou Sow sow borom sow production day mu mel ni ki nag saison deux mille deux mille dix neuf jàpp deux mille vingt ba la ñu jëm day mu nga fas yéene nag dellu si ci làmb ji wane boppam ginnaaw saison bii passé buñ ca jógee waaye ki nga xam ne nag moom dafa amoon bébé di ko ngénte moo di Baboy Balla Beye numéro 2 mu mel ne ki nag ajjuma ji ñu génte ca la doon ngénte doxam ja nga xam ne soxnaam am na ko muy doom ju góor yéeglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw wax na ko waaye Jeux africains yi nga xam ne mu ngay amee fa nga xam ne mooy ca Maroc lu jëm ci wàllum lutte libre lañ koy wax yéeglikaay bi sunu làmb ngay xamale tey de li leer ba leer day sunu lion yi maanaam gaynde yu jigéen nag ca la ñuy xeex ngir am seen ay médaille tey ci alxames ji nga xam ne moom la ñu ne waaye taala fa may dellu mooy Baboy liam boobu yàlla bokkun am ndey ak bàyyi waaye di ko yàlla képp koo xam ne gën nga àddina ndax nag loolu moo fi nekk rek waaye liir bi guddalu fan bañ lay takkali soxnaak yu mel ni ki noonu waaye taala naa ñaanal ñépp jàmm ndax jàmm ci la lépp xaj ne nañ fa muy jóge du fa jeex taala fa mu jëm du fa doy kon lu mu gën a ñëw rek na ñëw rek yàlla na ko yàlla tas ci àddina bi barke yonent bi sallallahu alayhi waa Leewtoo TV ñu ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant Babacar ngeen àndal Babacar ngeen àndaloon si revue de l'arène bi ñu ànd ak moom nag si jàngatu arène Babacar maa ngi lay nuyu. fay naa la Ndeye Coumba Fall ah, di la nuyu di la jaar di la fay yow tamit xam ah, nga di nuyu ñëpp ñu ngi suivre ci Leewtoo TV fu ñu mën a nekk rek di leen balu àq di leen bal di leen ñaanal jàmm di ko saaku si ñoom. amin Babacar Babacar nag démb sunu làmb dafa ñëw si G7 te mu ñëw si euh, division yi. nee na Mouride daal lañ classé premier deuxième ba sixième division daal ñoom def tey Babacar ci première division bi nag mooy la cour des grands fa la Modou Lo nekk Balla Gaye Bombardier Eumeu Sène Babacar. waa noonu la defee tey de waaw muy lu doy doy waar première division ba sixième division ah. première division mu ne Modou Lo la Balla Eumeu ak Bombardier ah waaw loolu tamit jàngat la xam nga nit ku ne sa xalaat. yaa am sa xalaat toog nga jàngat ni lii nii laa ko gis gisa ko nii defe nii yaa ngi dégg waxuñu ne nag xëy na ñun euh, ndax ñoom la ñu wax mooy dëgg wala du dëgg waaye loo ci mën a dégg ñeent ñooñu moom actuellement ñoom jaaxar naa ñoo ngi ci sommewu làmb ji Modou Lo c'est le roi des arènes Balla Gaye de daan na ko bu yàggul Eumeu Sène mooy doon roi bi yaa ngi dégg Modou Lo daan ko Bombardier moo doon roi bi Eumeu Sène daan ko kon yaakaar naa ñoom actuellement fu ñu leen classé itam yaakaar naa war nañu fa mën a nekk kon bu bu bu leen defee premier ñëw indi deuxième division tamit am ñu fa dugal yaakaar naa ñoom Gris Bordeaux la fa dugal ak ñoom Ama ak ñu mel ni ki noonu waaw ba tey itam loolu defe naa lu parce que boo jëlee tey lu ko li lii ñoom tafaatin ñii Ama Baldé Gris doo ñoo nekk deuxième division. Gris Bordeaux sax mi ngi deuxième division. voilà ak Lac de Guiers ah boo leen jëlee nga indi leen deuxième division waaye ba tey rek ñu li gis-gis la rek waaye li ma xam daal mooy ñii muy ñoom Gris ñoom Ama ñoom Tapha Tine ñoom Boy Niang ak ñoom Lac de boo xoolee parce que mën nga ni ñii ñooy seen ay adversaire ñoom Modou Lo ñi ak ñoom kii ak ñoom Balla Gaye ak ñoom Bombardier ak ñoom Eumeu Sène kon tamit yëglikaay bi daal xëy na tey dañu xëy indi seen jàngat rek waaw wala football daal football lamb ji daal nekk dañ léegi football nag am ay division troisième division nag xale ya noo fa ñoom ñëpp daal noo nekk foofu noonu troisième division waaw ñooñ tamit waaw ñooñ dañuy yéeg lañu waaw ndax ku mel ni Reug Reug moom ku ne xam na ne actuellement mu ngi yéeg te dafa naa amagul defet ci lamb lit avec frappe bi yaa ngi dégg mu doon tey itam ci yoonu yéeg la ne ñoom Siteu noonu ñoom Sa ñoom Papa Sow ak ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñoom guy gi mais ba tey li ma la waxoon foofu rek laa leen ndax fii boo xoolee ay revanche daf fii am ndax di guy gi yaa digganteem ak Boy Niang Boy Niang koo daan est may dégg Papa Sow tamit yaakaar naa ni bëri na ak ama ama daan ko te làmb day am ay revanche moo lay wan ne ba tey rek ñooñu même mën nañoo jaxasoo ak ñi ba tey bëri am fa ah, parce que làmb la ñoom ñëpp moo war nañu mën a bëri guy gi mii tafaatin daan na ko foofu tamit war nga xalaat ëllëg làmb war na fa mën a am ay ay revanche est dégg kon daal mu ngi noonu daal affaire bu doy waar. affaire bu doy waar quatrième division ba nag Babacar kaddi kayit yi noo fa ne xam nga li kayit Babacar. kayit day dégg naa moo daan nekk chef de bande xam affaire yooyu. <laughs> maanaam bandi quoi may bandi daal loolu mooy kayit. waaw kayit yi nag ni nga fa dugg quatrième division ñoom Valdo Garga Gris 2 Moussa Ndoye Elton Fra genre xel kooku daal. waaw ba tey itam rek li ma la wax rek ñooñu itam ay champion lañ te ñu ngi wane seen bopp moo xam Garga Mbossé la gis nga ren fi mu lim defanteeg Moussa Ndoye Elton it ci mbër yi la bokk ñoom. Mod ja ñoom giri ñoom rëg-rëg waa ñoom giri de maanaam daal fi mu nekk nii moom loo ci mën a dégg moom euh, def na ay division daal moom sunu làmb tey. cinquième division nag luri noo fa nekk mooy ñoom Elton ñoom Malick Niang mooy daal ñoom nees xam nga ñoom noo fa nekk maanaam daal les poids nekk ci cinquième division. waaw parce que ay ñoom doomu dàngook ñu mel ni ki ñoonu ñoom lañ fa yóbbu waaye ñooñu tamit boo leen indee ci fii ñoom Elton ne ak ñoom Giri Deñi ak ñoom Moussa Ndoye ak ñoom Modja ja ah, ñoom it ba tey mën nañoo bëri ak ñoom de waaw. cinquième division bi sixième division yi mu la ñu jeexalee mooy groupe des retardataires mooy les de Gambien Tonnerre Lac Rose Cobra. retardataire mooy ñu dematul. ñu ñu bloqué. ah waaw mais est ce que bloqué nañu à 100 pour pour pourtant ñu ngi bëre de xëy na nag bëre dafa fekk dafa fekk ne sport dafay am défaite ak victoire ah, mais ñoom ñu ngi bëre man daal li ma ki may jàpp ki dematul. mooy ki compétir tout mais bu fekkee yaa ngi compétir yaa ngi am yaakaar ne yaa ngi di nga dem ndax bu fekkee yaa ngi am combat di bëre yaa ngi am yaqin ne di nga daan boo daanee yaa ngi avancé même bu ñu la daanee tamit terewut yaa ngi compétir xëy na victoire mooy problème bi mais kii compétir moom pour man mu ngi ci biir mu ngi bokk te suñu beer Max Mbargane da ko daan wax rëbb ca coow la. boo jamul itam eh, ndey Kumba Fall ku jam may la nga yóbbu sa kër waaw eh, su lamb tamit bàyyi na xel tamit xale yi xale yi nga xam ne mooy ñoom nooy yéeg mooy les espoirs montants ñoom la tuddee les pépites d'or ku si mel ni ñoom nu euh, Ada Fass Tafambar Jackson de Thiatou Wuli de double moteur ñooñu daal moom loolu làmb yi na leen bàyyi xel bu baax. ay Ibra Gabo ak Thiatou montagne waaye ñooñu lim ay xale lañu ñoom Ada Fass ay ñoom Ibra Gabo ay Thiatou ngewel Thiatou montagne xam nga ay Tafambar ay xale lañu yoo xam ne vraiment ñoom tamit bi ñëwee si lamb yàggul mais actuellement marqué nañu ci seen bopp. yaa ngi dégg wane nañ ci seen bopp bu baax a baax a baax kon tamit duñu mën a def lu dul ah ñaanal leen ñoom it seen carrière rek comme ni ñuy ñaanal sa carrière mën a avancer jëm sa waaw loo xam ne nii defe naa indil na la ko ma jumulee tamit l'espoir émergent waaw ñu ngi yéeg ñooñu tamit ñu jar bàyyi xel lañ parce que boo xoolee double moteur a fan ne c'est normal Calme Ndour Grand Mbagnick moom tamit c'est normal mu ngi yéeg Gakou 2 ak ki nga xam ne mooy wulli 2 ay ñoom Mama Lamine Thiatou Yarakh Ndiaye Tine ñooñu tamit vraiment ñu ngi wane seen bopp bu baax a baax a baax lu jógee nag sunu lamb dal nag si record record moom li ñuy defar benn jàngat maanaam nee na daal géejawaay daaw ni nga woon si 30 pour cent de réussite mais ren am na 100 pour cent de réussite ndax victoire Balla Gaye ak victoire Lac de Guiers waa waaw kon de fi ñu jógee fi ñu dal si moom am na daw nañ bu baax a baax loolu la record wax ci xalim ak Abi Ndour waaw loolu nag li ñu ci mën a yokk mooy kuy liggéey moom yokk nga bëgg te bu naqaree mën naa neex déwén bu naqaree ren xëy na loolu moo tax loolu am waaye nag dama naan réussite bi à 30 100 pour cent moom est ce dem parce que tamit Balla Gaye am na ndam d' accord Lac de am na ndam mais Sa Thiès bëriwul Gouye Gui bëriwul Abdou Diouf bëriwul Les de Elton te ñun defe naa bu ñu defee année balance ak ñoom Aline Seyde yaa ngi dégg ah kon tamit euh, xëy na am nañu réussite mais pour man des na parce que ñun suñu bëree woon dina gën a neex mais ñooñu vraiment amuñu ay combat donte que nag ñi nga xam ne ñoom ñooy leader yi parce que euh, bu ñu nee leader géej Guédiawaye tey yàlla dogal na mooy Balla Gaye mooy mooy numéro un bi yaakaar naa loolu la yàlla def Lac de Guiers 2 ñëw yaa ngi dégg ñoom guy gi ñoom Abdou Diouf ñëpp ñàkk fa ay leader mais bu ñooñu bëriwul nag ah xaw na yéeme daal mais dañuy féliciter ñi nga xam ne am nañ ndam muy Lac di Balla mais ñi nga xam ne amuñu combat tamit ñu leen di ñaanal euh, déwén yàlla may leen ay combat bañ mën a bëre parce loolu mooy làmb sport la daal noonu la war a doxee daal mais nag réussite boobu noonu mu ko waxee daal man xaw na ma jaaxal quoi parce que année moo bëri biir géej waay ren. ni ñuy xam aussi si Leewtoo point net aussi que comme sargal Modou Lo bi ñu programmé woon vendredi dañ ko reporté ba beneen si yeneen ba yeneen jamono parce que nee nañu membre staff bi Modou Lo bi d'accord si bis bi àjjuma bi ndax dafay xat trop Babacar. waa ajuma de dafa nekk bés bu diis parce que tamit boo xoolee bu dee ngoon gi la mm, yaa may dégg li nga xam ne moom mooy kii ñu def ci jumaa yi euh, xadratul jumaa yi xam nga ak yu mel ni ki noonu loolu tamit am na loo xam ne ni mënul ànd boo ko boo ko bëggee boole nag def caravane dugg ci biir Ndakaaru da ngay am ñoom ne di leen leen perturbé te yaakaar naa ñoom waa kër Modou Lo du ñu nangu lool xëy na kon loolu motif la bi nga xam ne war na tax ñu dàq ko pour xoolaat beneen bés boo xam ne suñ ko ci defee daal euh, dinañ ci am satisfaction te tamit xëy na du war a gaañ kenn ni ñu xalaata noonu la ko war a gaañe daal Babacar nu jeexalee bëre lutte gréco-romaine bi nga xam ne mooy am fee si Maroc si championnat si si Jeux africains yi am foofu noonu tey nag la Sénégal di entrer en lice jigéen ñoom nooy ñoom nooy dugg euh, tey tey si suba Babacar. ah ñu leen di ñaanal yàlla nañu am ay médaille d'or ah, parce kanam mu dal ay sénégalais lañu yooyu vraiment muy lu neex ñuy ñaanal suñu équipe yooyu ña fa dem fa la suñu compétiteur compétiteurs yi fa nekk yëpp di compétir yàlla nañu am ay médaille d'or mais nag rawatina waa lamb ji ndax ñun si lamb lañ bokk mais ñëpp la ñuy ñaanal mais tamit di ci profité waale di nuyu ko xam ne mu ngi foofu euh, bërki de mu ngi ma yoon ay photo mu ngi fay di seetaan ñoom Pierre Malick Ngom yi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ak tamit le coach Moussa Fall moom tamit mu ngi fa gis naa kër moom ma yoon ay photo mu ngi foofu ci Maroc di ci Jeux africains yi daal waaw Babacar loolu lay indiloon euh, si euh, jàngatu arène bi di leen jox dig daje suba incha allah mais balaa boobu muy nuyu sama yaay mère Sow depuis Mauritanie di nuyu sama doom Mohamed Diouf di nuy aussi Dadi Gueye di nuyu ñoom euh, Astan di nuyu Chéri Khadija Diallo depuis Italie di nuy aussi samay bourchou maam Diarra Penda Junior ak Bébé Fallou ak aussi sunu doom jooju noonu Rokaya Babacar. waaw ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu ñooñu sa mbokk yooyu ñëpp ak ñëpp ñi ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar mais tamit di nuyu tey kenn ki nga xam ne euh, mën naa ne ku jege sëñ Abdou Karim Mbacké la ma koy nuyu parce que li may wax rek yow may yow yaay toog ñu ñooy toog di wax nit ñi di ñu dégg xamuñu ñuy dégg ñan lañ démb damay dox si ñaari tali bi ba fekk ko muy liggéey place ñu koy wax bëgg fàllu di taalibeb sëñ Abdou Karim bokk ci ñi nga xam ne ñi ñu sëñ bi wóolu lañu nekk tali di liggéey li nga xam ne mooy wàllu tapissé mu wooma muy ñëw vraiment mu waxtaan ak man encouragé ñu ci li ñuy def ñaanal ñu yàlla kon bëgg fàll moom nga xam ne moom moo nekk bëgg fàllu mu sëñ Abdou Karim Mbacke ci ca ñaari tali ca côté rond point xayma ba di tapissé maa ngi nuyu bu baax a baax a baax di ko ziar di ci profité di nuyu waale sëñ Abdou Karim Mbacke di ko ziar bu baax a baax di sàkku ci moom ñaan mi di nuyu kilifa diine yépp suñu xalifa yi sëriñ mun sëriñ suñ sëñ si man Mansour xalifa Lewna xalifa Yoff xalifa Medina bàyyi ba ci waa jàngu bi duñu fàtte kenn waa cene ba nuyu nañ kilifa diine yëpp ziar leen ñaanal leen jàmm ndax nag Sénégal comme li may wax rek xëy na or ak urus ak i jama ak pétrole ñu ngi koy wax waaye dafa am lu gën loolu te yàlla jox ñu ko mooy ay kilifa diine gis nga pétrole bi ñuy coow ak fer beeg urus beeg jama bi li ko gën mooy kilifa yi nu yàlla jox ak jàmm ji te kilifa yooyu defe naa ne bokk nañ ci tax jàmm ji implanté wu kon kilifa diine yooyu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di wax ne xalifa yeeg njaboot geeg taalibe yeeg yëpp na ñëpp gudd fan te ñëpp am jàmm barke yonent bi sallallahu alayhi mais di kontaan bu baax a baax ne tamit di jaale sama ay yaayu dëkk foofu ci ñaari tali ndax nday ko ma dem dama am lu ma waaw loo xam ne daal euh, bi ma bi ma ko waxee xaw na ma kii daal parce que tamit xam nga xale dañ du fàtte dama nekkoon di jaay nii di ambulant su ma ñëwee seen kër yi ñu jox ma lekk jox ma naan ñu koy wax ab sa jóob Diop mère sa waaw ab sa jóob di sotu lat jor man naa ni dëkk sa ñaar tali ak ku ñuy wax soxna Ndey Jaañ ma dem fa dëmb di leen ñu ne ma génn nañ àddina muy lu triste ma leen di ñaanal yàlla yërëm leen xaraleen aljana mais di ko jaale tamit famille Diop bépp mère Absa Diop di ko jaale tamit waa këram su sama papa bi nga xam moo nekkoon borom këram di Mbay Fall ma ko koy jaale ak ay doomam ñoom ki nga xam mooy Bintu Mbàkke ñoom xam nga ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen jaale mère boobu di sama yaay vraiment yeggoon trop fu sori sori ci man parce que xam nga mbaax yombul daal te gis doomi jaambur nii rek mu ñëw ci yow nga ji ko mbaax loolu c'est autre chose loolu ku baax rek a man di ñëpp di balu ñëpp àq bi moo tooy waaw doy na waar daal mais yàlla nag moo ne kul nafsin saay xatin mawtin fa kullu mën alaya faaniya kon dañuy dellu lépp suñu borom daal yàlla na ko yàlla jégal tax rew ko aljana amin Babacar